jàngeen jëf mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan a travers Equivox TV ndogal la wàcc ci kaw Samba Sow moom mi nga xam ne nag moo faatoon kii di Fatoumata Mactar Ndiaye nekkoon cinquième présidente du conseil économique social et environnemental ginnaaw ba nga xamee ne décision bi wàcc na kile di juge chambre criminelle de Dakar daal dina tëj Samba saw giiru dundam boole kook ay liggéey yum santa bañ Samba Sow boobu lee def nag boobu jëyee ñu ngi koy toppee li nga xam ne moo di tentative de vol sans autorisation ak tentative d'assassinat ci ki nga xam ne moo di doom ci kim faat ginnaaw daan boobu boobule nag ki nga xam ne moo di Samba Sow war na fay deux cent millions famille Fatoumata Mactar ak cent cinquante millions yoo xam ne moom la war a jox kii di doom ji daan boobule nag diis na wala diisul ci ki nga xam ne moo di Samba Sow nañ déglu kàddu askan wi. parce que tamit euh, loolu c'est c'est vrai d'accord naa ak ñoom parce que yaakaar naa ne fii tamit dëkk bi dëkk ñun ñëpp ay dëkkandoor lañ ay mbokk lañ ay lépp lañ quoi xam nga ku fi rey nit dañ laa war a ray ku fi rey nit dañ laa war a rey parce que rey bi moo fi war a jeex parce que nit ñi dañoo sonn nit ñi dañuy dem di wuti lu ñu am ñuy yore seen paaka ñuy yore seen naq si noonu boo yore téléphone sax ñu bëgg laa rey ah loolu dafa métti waaw travaux d'accord si de nañ ko tëj ba mu dee moom it c'est normal parce que tey boo ko wàccee tey dégâts yu bëri dana manqué dana dina xaw a kii dina xaw a tene waaw parce tamit gars yi fii daal dañoo doy waar chaque jour ak i rey chaque ak i rey loolu ëpp yaay booy dafa ëpp nañu dimbale ngir yàlla te bàyyi rey bi nañ dem liggéey yi jaamu ji yàlla te bàyyi rey bi rey bi demul fii nag ku fi rey nit dañ laa war a rey ndax rey bi wàññeeku nit yi ñëpp jeex nañ ndax ay rey ñëpp dem nañ ndax ay rey dañ bàyyi rey bi ngir yàlla affaire bi moom même bi ko ñi ñi déggee rafetlu ñu ko xam nga te aussi peine bi tamit maanaam pour man daal pour man waaw parce que dañ ne travaux la yooyu noonu tekki giirig dundam xam kon tey euh, pour man daal war nañu ko mën a baal quoi giiri dund gi daal pour man daal mooy loolu daal. ah ok waaw loolu tamit euh, loolu moom jotuma ko si dégg ko franchement jotuma si dégg comme euh, affaire yi sacrifice yooyu noonu quoi mais man pour daal man pour man bok xam nga metti na même njabooti ñi mu dal aussi metti na rey nit moom yaakaar naa ne beneen affaire la waaw parce que rey nit moom dafa xaw a yéeme trop quoi franchement. waaw pour man daal mën nañ ko tëj quoi xam nga parce que fii yaakaar naa ne même boo jamee nit sax dañ tëj ay am na fi ay deux ans trois ans quatre ans yooyu noonu quoi xam nga mais rey nit doon na loo xamante ne aussi xaw na doy waar quoi xam nga daal pour man. pour man daal jiiri dundu gi daal aussi métti na trop quoi franchement à travaux forcés yooyu nag quoi. peine de bi aussi tamit bi mu war bi mu waree wàcc aussi dafa yàgg xam nga boobaa léegi ñu ngi koy waaj di ko waajaat xam nga xam que tamit rey nit dafa rey nit su ñu xëy suba tijji la ngay dox say business pour man loolu aussi dafa yomb quoi ku rey daal dañ la war a rey quoi franchement. pe loolu ça dépend aussi peine de bi wàcceegul. lu man lu wàcceegul aussi man mënuma si jël benn euh, responsabilité bu wàcc peine de mort wàcceegul Sénégal xam am na am na dëkk yu mu am si Europe mais amagul Sénégal mais daal pour man daal aussi war nañ ko wàcc Sénégal quoi parce que tamit ni ñu reyee nit ñi dafa yomb da ngay gis nit jël téléphone jàmbur sax jam ko yooyu moom tamit xam dafa xaw a mu dee après ñu ñu tëj ko ay deux ans trois ans ñu bàyyi ko loolu dafa yomb ko franchement ku rey nit daal dañ na war a rey pour man amul ay baal amul dara quoi ku rey nit dañ na war a rey quoi parce que dafa yomb trop rey nit xëy ñu tijji la ngay dox say business ak ki ñu rey tamit ay mbokkam bu xamoo ndax kooku soutien de famille la xamoo lan la quoi ndax aussi amaloon na gàlleem njariñ yooyu noonu nga ñëw rey ko après nekk si sa yëfi bopp te dara après ko ci fekk quoi xamoo ñooñu nu ñu toogee yooyu ku rey daal lañ na war a rey pour man peine bi mooy moom mu waree wàcc Sénégal dafa yàgg quoi franchement. instant société bi dafa nekk loo xamante ne rey dafa bëri si Sénégal. foo faut ñu moytu ci loolu quoi en même temps suñ la tëjee même pas deux mois trois mois nga génn xam nga après nga defaat même chose xam nga dafa doy war quoi il faut état jóg ci loolu quoi. mais suñu def peine mooy rey rek gën a bëri rek loolu la quoi. ku rey nit moom ah franchement parle moom war ñuy dem sax di xaar si yoon quoi ku rey nit moom ah dañoo ko war a rey waaw réew mi sax loolu loolu la war a doxa sax man Sall su boppam loolu la war a doxal sax ku rey nit ñi rey la. moo gën sinon bu ñu deful lool rek sinon di baax quoi sinon rey xam na day yomb quoi day yomb te parce que asaan yi jamono ñu toll ni rey nit asaan bëri na fi xam na rey nit asaan yi bëri na mais bu ñu deful lool rek di baax quoi bu ñu def lool bu ñu def lool rek di baax ku moom ah, dañoo la war a rey carrément waa ñu xam ne loolu la loolu la diine wax waa diine sax loolu la wax. Ananasi kay Ananasi moom Ananasi torop sax mais xam na rek. ko ren yi moom dañoo la war a rey carrément waa ñu xam ne moom loolu la quoi war ñu xaasa dinaa ay dama lay tëj dama lay tëj waaw merci waay ngir fàttali rek Fatoumata Mactar Ndiaye moomu Samba Sow mi ñu ko fàttee woon ci biir néegam le 19 novembre 2016 ca Pikine Samba Sow nag ci procès yi nga xam ne jot na ko am ak bi muy fàttali rek ne kii di waajuram jurul reykatu nit dañ ko liggéeyoon ba mu tàggali ko ak xelam moo tax mu def bile ñaawteef mbokk yi xarit yi ñu doon seetaan ñu ngi leen di jaajëfal leen jox dig daje beneen yoon ci yeneen itam